maa ngi leen di nuyu di leen jaar man la Cheikh Dieng euh, di adjoint président de l'ANAS monsieur Mouhamadou Bamba Diop di président de la commission culturelle tamit waaw en fait ñëpp euh, gis nañu euh, tey ñu ñëw fii ñu ne tey dañuy tëj école bi ci loo xam ni kayit yoo xam ni c'est pas clair këyit yoo xam ni leeru waaw parce que ba ñu wootee suñu suñu suñu suñu suñu suñu avocat maître Kane wax nañ ñu carrément ne ñu amuñu droit sax dugg ci école bi ñu ñëw nag dugg ci école bi def lu leen neex feuilleté def lu leen neex ainsi de suite demaat seen yoon te loolu c'est anormal c'est pas quelque chose yoo xam ni vraiment may lancer un appel wax ci autorité yëpp ñuy wax ci loolu te vraiment il faut que les choses soient claires affaire yi dafa war a leer waaw parce que ñeenti nit yoo xam ni euh, c'est quelque chose de famille yow mënoo gérer sa sa sa FNAS fédération nationale des albinos du Sénégal mu tagga témbe nga ñëw ne yow da ngay gérer ANAS te ANAS il a un président qui est Mouhamadou Bamba Diop Mouhamadou Bamba Diop ñëpp xam nañ ko ci Sénégal parce que liggéey bu rafet bu muy def ci puune yi wax dëgg fa yàlla ñëpp mën nañ ko seede waaw ñii taxaw sama sama ginnaaw ñoom xam nañu mën naa mën nañ mun nañ ma seede ñoom xam nañu Mouhamadou Bamba Diop il n'est pas là pour nekk fi di di def ay kasaw kasaw dafay ñëw pour liggéey. réalisation yi ñu def ci Puune yi bëri na parce que de un euh, ñëpp xam nañu Puune dafa metti ñëpp xam nañ li crème solaire di jar ñëpp xam nañu cancer li koy faj c'est des millions imagine toi benn albinos am cancer yow nga jël albinos boobu fay ci moom ay millions pour pour ñu pour pour cancer bi dañ loolu c'est pas c'est pas loolu réalisation la nest pas. Euh, en fait euh, ba pare teg ci am na albinos yoo xam ne dañ leen di jël comme man mii ak kii Babacar mii nekk sama ginnaaw tey jii ñun ñoo gere poulailler bi poulailler bi ñu ngi ko gere de façon que nga xam ni deux cent albinos yi nga xam ni ñoom la ñu war a interner ci ci centre bi euh, bi nga xam ni fondation bi moom moo ko moom moo ko moom moo ko tabax fondation Fassa moom moo tabax centre bi ñoom nag dañu jàpp ni Euh, Bamba Diop dafay jël xaalisu albinos yi di pasar pasare tel n'est pas le cas ñoom comprendre ñu dañu am partenaire boo xam ne daf ñu financé ñu tabax centre bi dañu finance ñu tabax centre bi yaa ngi dégg Bamba jóob yaa ngi dégg ñun Bamba Diop ci boppam bu feebaree ñun dañuy kolo pour dem faji ko moom bu feebaree ñun dañuy kolo pour dem faji ko xam nga ni kooku kon mënut a jël alalu puune yi di ko lekkaat koo xam ne day da ngay kolo pour faj ko mënut a jël alalu puune yi di ko lekkaat ñoom nag loolu mu la ñuy def seen xel yi loolu lañ def seen mentalité mais te loolu nag wax dëgg fa yàlla duñ ko nangu dëkk bi nag dafa am loi dëkk bi am nay autorité tamit ñi lancé appel di ñaan autorité yi ñi ñëw taxawu ci lii waaw noo dina ëpp dina ëpp doole wallahi wal kitaab dina ëpp doole ñi ñaan ñi lancé appel encore une fois pour auto autorité yëpp yëpp yëpp yëpp ku ci mën a teg sa loxo nga teg ci sa loxo waaw parce que lii nii lii nii lii nii ñi ñi gis nii actuellement muy raam ci ñag bi la jëm ñoom dañoo jublu ci nangu kër gi gisoo ñu ngi ànd ak huissier bi nen nen ñu tëj nañu tëj nañu tëj kër gi waaw maanaam mooy yow lekkoo ci ndab li duma ci lekk loolu mooy lekkoo ci ndab li duma ci lekk ci ñun lañu bokkoon au début au début ci ñun lañu bokkoon mais xam nga loo giseek rek euh, maanaam àndandoo boo gis yaa des mécontents dafa am ay mécontents yoo xam ne c'est des rancuniers ñoom munoo leen a loolu mënoo koo dindi ci ñoom ñoom naturel noonu la ñu mel naturel noonu la ñu mel léegi ñu ba si seen ba si seen waxin ak seen doxin dañ koy wone loolu dañ koy wone waaw xam nga tamit dañ naan képp koo xam ne amoo liggéey da ngay am jot ça veut nit ku bu amul liggéey day am jot saabu bu xëyee suba moom mu ngi xool luy li nga xam ni moom mooy empêcher euh, moromam euh, mu mu ci mu ci dox waaw mu ngi noonu loolu noonu noonu la noonu la demee.